Vous m'excusez, la politique ne m'intéresse pas beaucoup. Mais ce que je sais quand même que l'AFP, je crois qu'ils ont renoncé même à diriger le Sénégal. Ils n'ont plus cette ambition. Ah, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ont renoncé Non, ils ont, parce qu'on a vu euh, bah, toutes les élections passées, ils sont alignés derrière euh, euh, le parti au pouvoir. Ils sont avec eux, c'est tout, ils ont renoncé. Pas d'impact, ils n'auront personne.

mooy waxoon ne affaire yu imbécile wax ñaw ka wax wax ñaw ñaaw deug ñep ñëpp dégg won nako ko AFP day dugg ci biir rek be bu gene yow yor day wañe di bu jo carrément ah man di ama ci moom yakar AFP mom ama ci yakar ñaar da am Karim Macky Sall kenn kenn gay moy am mooy ab Matar Ba rocce ko rek bu am xëccee mbool dambolo lo xamna am na bol na trop mom karimat da ci am yakar nak jaajëf. waaw sénégalais yëpp sénégalais lañ ku ci nekk rek ku muy sa illa rek nga xool ne war nga mën a présenté wu nga présenté wu mais jiite réew du caagi nas damay toog yor pouvoir yi di def lu ma neex euh, jiite réew daanaka da nga ne askan wi jox leen ma seeni ille ak seeni yitte ma jaamul leen ko loolu moo war a nekk li njëkk a nekk parce boo demee ba prêter serment yaakaar naa ne la nga prêter serment sacerdoce la war a nekk ci yow nga xoolaat sa diggante ak sa tëraayu bàmmeel nga xam ne bi ngay ñëw dañ la taaw booy dem dañ lay taaw nga seet tuuti ruus nit ñi pour jëmmal sa bopp xam ne dangay njaboot danga nga fiy wëcc da leen fiy wëcc ëllëg fexe ba wàcce leen fi wu neex réew mi nag benn réew la kenn naxul kenn prison bi gën a mag ci àdduna mu ngi ku ne kasso yi ñuy tabax pour xatal ko la rek ku ci nek sa xelum bop di le juger en un moment donné so bëgg mu wax la so mu wax la lool rek doy ñëpp ne ci ñëpp xalaat ñu and ak dal ak yara ki teggin fexé ku ci nek lo def ngir génn ci rek nga def ko ngir génn ci teg jubal sank ci sa wax dama dégg nga ne même diiné bi sax boo amee soixante. waaw waaw xam nga lépp dafa am sëy yëpp dafa am sëy ci àdduna bi nit boo tolloo ndaw xëy na sa fugg ak sa vitesse dina lu yóbbu ci lu bari sans pour autant nga réfléchir mais boo demee ba nekk mag à force que ngay nekk mag di nga am le vécu maanaam expérience dina am benn capital de expérience boo xamante ne dina la permettre yow nga def benn autocritique la nga daan def ak léegi fa nga toll boo mënaatoon la nga mënoon. doo defaat la nga defoon leneen ngay def du en fin de compte même en l'islam am na benn sëy boo xamante ne da lay yóbbu en retraite donc dootoo mat imam dootoo mat seede dootoo mat dara mais dañ lay warmaal jëmmal la waaw ndax nit ki booy boo demee ba soixante ans déjà li nga mënoon mënatoo ko déjà à plus forte raison que nga am yenn âge avancé yi ku ci nekk nag am nga droit ne sénégalais nga damay ñëw pour fexé jot réew mi. légui yow yow yow yow ci sa xalaat bu gatt dafa fe dafa melni buma la déggé AFP dal, non c'est trop tard. non non man je ne dis pas gis nga pour man ñep ay am ñep ay sénégalais lañ ku ci nekk am kapas, xam nga soxna ci ni ñi jodé kër gatt na yalla moy dimbali sutural jamm bi mu mën ko def gis nga xam-xam yalla ko mom di mayel bopam am jang, day tax a xàmmee ràññee barre de diplôme ça ne veut pas dire que. non yaa fi lu ndaw lañ ñi ko yaakaar classe intellect Nous ay intellectuel lañ da ngay nga nga Sénégal tamit ñu def mi nañ ko bu baax bu bëgg nañ mi tout un chacun nañu xol espace bi ñu yor espace d'exécution manutentionnaire commercial bi nañu amul kenn kuy sénégalais bu artère boo jël boo compter sur vingt ñaari sénégalais nga fay gis ñu ciy fonctionner ñu ci des ñëpp c'est des étrangers donc réew moom naka la mën a suqali ko bi nga xamante ne ñii ñëw di wut si yëpp seen koom bi ñuy am seen réew la jëm du des ci réew mi nga xool ñuy école yi publique yi boo ci dugg boo doon xool classe par classe tu vas trouver ñetti sénégalais ñeent walla juróom. loolu daal mooy suñu problème nañu xoolaat loolu ñu jéem a góorgóorlu. ah nañ dem rek yàlla baax na. yàlla baax na nañu dem rek. bu 2024 jotee waa ku nekk di nga xam sa bopp man daal xam naa ne Macky mooy xorom bi bu demee xorom bi dina jeex man noonu laa ko jàppee waaw. 2024 incha allah man géntu naa ne jeune moo nar a diriger dëkk bi te jeune boobu man dama foogee ne Sonko la si kàttanu yàlla man Sonko laa gëm ne 2024 moo nar a gañe yàlla baax na. non du question bañ a gëm sax mais damaa xam ne ku jeexal war a dem abal sa moroom ñoom instant waaw dañoo yàgg waaw bu seen deux mandats bu jeexee nañu dem abal seen morom te defe naa seen morom mboobu ñu nar a abal seen rakk jooju Sonko la nar a doon te incha allah yàlla dina ko def waaw jërëjëf waaw.